internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci biir Limametti di leen remercier encore une fois ci topp bu ngeen ñu topp comme à chaque fois ñëw ak yéen ci seen revue de presse. xibaar bu neex daal dinay tàbbi ginnaaw ba alxeyri bi jubee ci animatrice su TFM boobu di Bessél Bass daal nay am borom kër ci samedi 19 septembre bi ñu génn ki ko takk nag di ab joueur sénégalais di Pape Maurice Sankharé takk ga nag ña ngi ko amalee fële ca Ngor moom Bessél Bass nag image yi daal dinay firil ko daal dinay génn ci. rang célibataire yooyu ñun nag waa Limametti ñu ngi koy souhaité heureuse ménage ba tey ñu daal di des ci àll xayri ki nga xamante ne moo di sumbulu bàcc li daal dinay am borom kër gannaaw ba fan la ci ginnaaw ñu ngi ko doon limaale ci ñagas-ñagas bi am ci diggante Mandiaye Seck ak kii di soxnaam moom sumbulu bàcc li nag daal nay daggal rumeur boobu daal di génn ci rangub célibataire yi gannaaw ba mu divorcé daal di toog bu yàgg boobee moom Soumboulou nag ki ko takk di Abdoulaye Diop daal di koy may 6 million ci sunu koppar. ñun waa Limametti nag ñu ngi koy souhaiter bonne et heureuse ménage moom ak monsieur Diop. audio boobu ngeen di gis nag mu nekk discussion wu Ousmane Sonko ak ki nga xamante ne moo di Aïssata Diop Fall gannaaw ba ko Sonko ne dégg na kàdd yu ñagas yi mu ci daal di koy teg ci ginnaawam te moom xaw te moom nee na ko xaw ma la mësuma la gis te it mësuñoo seq dara kii di Aïssatou Diop Fall nag la ko tontu rek ah, mooy kan da doon xoromal di plateau am Aïssatou Diop nee na ko jamono yi yow yaay toj ndax ko képp ku fay yow yaa koy taala moo tax ma jël solution boobu ci yow kii di Sonko nag nee na ko xanaa dañ la ciy fay dara wala ñu am luñ la ciy dikk ndaxte gis nañ ne que da ngay protéger kii di derrière Macky Sall ak ay njoñam ni war nga ma sa bopp ndax li ngay def nii war na ma ni que demee woo ci ak ngëm-ngëm danga ciy demee ngir wut dara ak buzz. kii di Sonko nag daal na koy wax ni saa njookul wax na la li ni mel Aïssatou Diop Fall nag weddi ki dara da ko ne suul gaas du ko tee xeeñ moo tax bu saa waxee loolu ma dëgg bal bi daal di tarxiis naqar ak tiis benn doomu sénégalais la ñu faatu fële ca Belgique benn xaritam nag ba mu dëkkaloon ci diiru fukki at moo ko fekk foofee ci lawetu lalam ba mu tëdd daal di ñàkk bakkanam ca deuxième étage naqar ak tiis fële ca Joal benn sàcc moo daal di tëb dugg ca këru nduuree ni bëggoon a yóbbu téléphone tante yi bàyyi sall naka noonu nag ñoom tëddaguñu ci lañ ko daal di dàq ji sàcc ba nag dafa am fa mu làqatu woon laata nag bàyyi sall di ko fa fekk la sàcc ba daal di jël ab paaka daal koy bojj ki nga xamante ne moo di Baye Zale ba mu mujjee ñàkk kanam ñi di waa gendarmerie bu Joal nag daal dina ñëw teg sàcc boobee loxo kii di Baye Zale nag nekkoon na ab nappkat ay atam mi ngi tolloon ci fukki at ak juróom ñeent képp la tolloon ñii di waa kër nag Baye Zale nag am nañu naqar ak tiis ndax sàcc ba yóbbulu leen télé mais yóbbul na leen lii di ab askan bi nga xamante ne notuñ koo dawe. mbokku internet yi leen leen indiloon tey seen revue de presse mu nekkoon xibaar yi gën a fës di leen jox dig daje ba beneen yoon ak yeneen xibaar di leen wax nag bu leen fàtte abonné suñu chaîne youtube limametti point com ngeen bësaale cloche notification bi leen di permettre ngeen mën a am information yi fu ngeen mënti toll.